ñoo ngi nii ak président gis ngeen xam ngeen nit moom kenn du ko waxal lu mu waxul président ngi nii Sénégal waxi góor jigéen ñi dafa leer nee na fii kenn indiwu fi feeg mi ngi fi président waxal nee na feeg mi ngi fi yàlla di ko jox bakkan di ko jox muy jiite réew mii fii kenn du fi légaliser mbiri góor jigéen kon kay na xel yëpp dal mu ngi ah. ne daal loolu la président wax lu ma neex kenn fayu hmm. lu ma neex wax. Hmm. lu ma neex def xamal la. Hmm. xam nga ña euh, euh, euh, c'est que dama doon bañ di jël numéro xam nga keroog fii laa toog ne. artiste yu ndaw yi duñ jël téléphone. léegi ma si li nga doon que yow rek rek nag tey ma may la seen sens. mbay yow moom doo jël téléphone mbay. non non non tey dama leen yow da ngaa def ne pas déranger. non non de. <laughs> soo ubbee sa téléphone. ñu lay saaga. Eh? soo indee te tey jot sax jot naa koo xamante ne dañu ma. Hmm? dañu may am plainte. plainte plainte waaw. jëlee ne ma <laughs> maa ngi fekk fii dans la bonne ok buñ la ko buñ la woowati wala ñu ñëw jël si la localité la. Hmm? nga ne ko kaay jël si ma. waaw mais jël si ma mbay. mais mais mais maa ngi fii fi ma dëkk. ñoo la jël si ma. man ragaluma Thiès laa dëkk. ah. nitu jees nga. nitu jees laa. Saneex. mooy sama xarit. Hmm. kii sa sama xarit. Hmm. kii mooy sama Zina mooy sama xarit <laughs> Zina mooy réer te il faut ñu arrêter. quand même. Ah, ah Tafi ki man fan si kii laa te suba. Eh, eh. damay dem kii. Eh. kii fi invité démb. yàlla. da dal su ma xëyee da ngay dal. waaw ma wax li ma xam wala ma bàyyi noonu. non non bàyyi noonu. <laughs> ma wax wala ma bàyyi. non lañ bàyyi noonu. daa neex a wàcce moom daa nekk a wàccee waaw mais eh eh man si eh, kii jël na ma apprenti. kan à part lundi damay dem di di. Ciko ah Ciko waaw. barke Ive non Ive. mbay yaa bëri buri mbay. barke Arouna Ciko Ciko du ay Ciko bu bëri buri. mais mbay. Hmm. mbay réew mi. Ah. dafa neex. waaw foofu lu jot wax lu jot man Acı yok, acı, acı karameçe. Acı karameçe. Ha ah, tut, tut sefer. <laughs> Acı karameçe. kon bi moo xew léegi. Eh, tous. kon xoo am na xale jigéen ñoo xam ne dañ koy fekk sax di génne paaka. Eh. génération tous tasa. waaw loo ilaah ñu ngi tëj dëkk bi. Sénégal amul pression. day eh, jékki-jékki rek génne paaka bi nga pression yaa ko teg sa bopp. non eh ku fi xëy am pression yaa ko teg sa bopp. aywaay aywaay aywaay tous tous mi ngi tëj dëkk bi. Sénégal dëkk bi ah. c'est vrai que métti na. Uh-huh. metti bi mooy xaalis bi ni mu war a génne génnewul noonu. Uh-huh. mais neex neex. dëkk bu neex fii la fekk baax. waaw gis nga booy li nga fekk jigéen parce que nit ñi amuñu benn xala amuñu stress. xam nga